والقلم وما يسطرون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 أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد Serigne Saliou yéen ban secteur ngeen yore ñu ñoo yor secteur collation et rafraîchissement lépp loo xam ne dafa jëm ci euh, collation rek ak li koy seddal rek ñun moom lañu yor jugee ci euh, Hizbut Tarqiyyah comme ni ko ñëpp di gisee ànd ko waa ahlu kafe ñoom ñooy defar wàllu café yeeg ñun itam ñoom ñoo defar lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum seral moo xam citron bisaab bu weex bu xonq daqaar yooyu yëpp ak mboolem loo xam ne day sedd rek ñun moom la ñuy yëngu fii ñoo ko tuddee ko secteur collation et rafraîchissement. Euh, yéen si jumtukaay yi nga xam si moom ngeen di jëfandikoo yi maanaam matériel bi moyens yi ngeen di jëfandikoo lii ci seen seen budget la wala fan la jógee. waaw maanaam euh, li ñuy jëfandikoo nii loolu yëpp ñun ñoo ko joxe ci suñu biir xam nga Hizbut-Tarqiyyah dafa baaxoo di di ndax yoonu murit moo baaxoo loolu sax maanaam joxe addiya ku di suñu biir ngir li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ñu di ko joxel suñu bopp nga xam ne moo tax lépp loo xam ne gis nga ci ay xéewal ñun ñoo ko joxel suñu bopp lépp ay ay ay ay ay nit yu ànd bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa bokk benn gëm-gëm muy liggéeyal sëñ Tuubaa ñoo ko boolendoo cotisendoo euh, cotisendoo ko kenn ku nekk joxe ak dërëmam dërëmam ñu boole ko mu doon ab som bu takku ñu jël ko fas yéene ko indi fii ànd ak sëñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des mourides euh, ak dundal gi nga xam moom lay dundal weeru koor moom la ñu fas yéene ànd ak moom nga xam ne fii ñuy waxee yéen ni ñu am ñu nekk ci kuréel bi jàng waa café ñu ngi nekk ci café waa waañ ba ñu ngi nekk si waañ ba di liggéey ki secteur yëpp mu ngi dox fii nag mooy secteur collation nga xam ne lépp loo xam dafa jëm ci wàllum seral rek moo xam citron comme ni ma ko waxee sànq rek ñun ñun moom la ñuy defaree fii lépp lu loo xam ne su lu sedd la fii yéen a koy yéen a ko fas yéene joxe bi fan ngeen ko def fii ci kër gi rek la yam wala da ngeen di génn waaw joxe bi mbaalam maalam mboolem gan yi nga xam ne dañuy ñëw ci kër gi maanaam bu ñu waxee gan nag maanaam mboolem ñi nga xam ne dañuy ñëw fii di di di teewlu jàng mi boo demee ba ci bi da ngay gis ay ay sites yoo xam ne foofu la ñu réservé euh, kilifa yi taalibe yi fii yooyu yëpp nga xam ne mboolem ak ñi nga xam ne dañuy nekk ci biit sax danañ leen dool di leen servir li nga xam moom lañ defar nii lépp ngir euh, mbégte weeru koor ndax weeru koor dafa nekk loo xam ne Serigne Touba euh, bokkoon na ci weer yi mu gën a fonk moom weeru koor nga xam ne nee nañ bu masaan bu masaan jub si rek ak di di ko teeru li mbégte gi muy àndal di feeñ ci xar kanam ñu ko ñu ko xamoon ñëpp nen daana feeñ ci moom nga xam ne bu daan euh, tàggoo itam pour dem euh, dana am benn euh, loo xam ne moom lay moom lay feeñ ci kanam mooy ak ak gan gu rëy goo xam ne day jugee ci moom di dem moom weeru koor googu teraanga weeru koor googu nag ak mbégte weeru koor ak jaamu yàlla ji ci nekk moo tax desuñ desuñ gannaaw ci benn fànn boo xam ne dafa jëm ci wàllum luy saral waaw waar wi bëggoon ci nekkee ba yëg-yëg ngeen di yëg maanaam euh, bu ñu ci nekkee moom benn yëg-yëg képp la nam mooy yëg yéeg ab murit boo xam ne dafa laxasaayu di liggéeyal sëñ Tuubaa boole ko yitte ak pas-pas ak pëste bu mat sëkk ngir lan moom euh, ci lii la ñu nàmp ci lañ judd màgg ci muy muy liggéeyal sëñ Tuubaa buñ ci nekkee yëg-yëg gi ñuy ànd maanaam kenn mënu koo takk daal yëg-yëg gu gu kawe goo xam ne mën na su koo wax waaw dañ koy dund ci sunu xor rek ngir jëmi sëriñ bi képp waaw mais mais li ñu yëg suñu bànneex ak mbégte mën na su tudd ci làmmiñ waaw collation bi weer koor gi yëpp yéen a ngi fi. waaw collation weer koor gi yëpp ñu ngi fi démb fi lañ nekkoon tey jii fi lañ ne babaa weer koor du saa su boo fi dikkee di ñu fekk ñu ànd ak ñu ànd ak uh, mbokk taali bi li nga xam moom mooy liggéey mooy secteur collation. kaddu gi mujj yi yàlla ah kaddu gu mujj gi moom xanaa di gën a sant Serigne Touba bu baax a baax gannaaw ba nga xam ne boole nañu ci mbooloo mii nga xam mooy Hizbut Tarqiyyah di gën a sant sëriñ bu wér a wér di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifa général des mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim ak mboolem kilifa di nekk ci réew mi yëpp ñu leen di ñaanal ñu yàgg fi lool te ànd ak wér euh, di wax itam maanaam ñëpp nañu ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké ñu nañu ko ñëpp ñaanalal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax yàggam sagub lislaam la yàggam sagub yoonu murid la ñu ngi ñaan ñëpp ñu sàkk ci ñoom ñu gën ñu ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér loolu képp moom mooy kàddu tëj bi jërëjëf ya xayra tayfin ata bil bisri wa sahlan bila adadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد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 بنعمة ربك بمجنون